waaw moo nekk noonu de. waaw ah, moo nekk noonu. moo sol lu bett la. waaw moo nekk nii. ku sol. ku sol. ñëw rek daaw yi nii dama sonn trop trop trop léegi dama bëgg wax confrère yëpp nii bu ma demee incha allah ba noppal dinaa def benn vidéo mhm. ci euh, Yërim Post mhm. incha allah boo xam ne ci laa def sama déclaration euh, incha allah. gis nañ Sénégalais yi apporter la ce soutien ci réseaux sociaux yi. maa ngi maa ngi maa ngi remercier ñëpp vraiment taxawaay bi rafet na trop. Euh, maa ngi ñëw léegi daal su ma su ma demee ba noppalu rek parce que grand fii. condition defa métti sëriñu diine yi tamit euh, wone nañ seen euh, sympathie si yow lan nga ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp dinaa def ci kanam vidéo ci Yërim Post mais grand jàmm rek ngay am incha allah déclaration bi yëpp dinaa li ma war a wax yëpp dinaa ko wax waaw mais jàmm ngay am jàmm jàmm yokk yokk yi mooy Médine